mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim di wax ne jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu àdduna di nuyu àdduna monde entier waaw képp kuy suivre bu Siteu waaw di leen wax ne ñu ngi leen di bu wér a wér waaw bala dara damay sant yàlla xam nga di julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant surtout waa Géejawaay waaw di sant waa Géejawaay bu baax waaw di sant sama gaay ma àndal fii saal bi su mel ni ñoom Aba Daaru xam nga ci mel ni Mansour te ku ci mel ni Mansour Tall boole ñoo chauffeur jox ñu oto muy Baye Mor nekk bu baax moo ñu indi fii ci salle bi xam nga xaay ñu waaw di bëggee gaa yëpp di bëggee sama gaa yi ma àndal ñoom Youssou Gëmal Etienne Abad Daaru xam ñoom Buree la waaw sama gaa yi di bëggee ñëpp di bëggee jëm kot kii mooy sama kot su jëm moom su ma ñëwee ci salle bi moo may teg lu métti barke Serigne Touba dafa am ñoo xam dañuy jóg di wax naan bu Siteu du entraînement mais su may entraînement du ma tàggu kenn damay ñëw borom saal baa ni Moussa chaque jour maa ngi fii. Mhm. samedi sax dama koy ñëw mu téye gémmiñam ne ma mbër samedi saal man ko xam damay dafa am lu ma war ndax dama nekk mbër waxoon dama dama nekk nit ku populaire. Mhm. di mobiliser su ma jugee géejawaay ñëppay jóg. Mhm. ñu may dooleel ak Serigne Touba Mbacke di sant jëm kot kii dama koy sant bu baax saa yi ma ñëwee si saal bi du may jàmm daf may teg lu métti di bëggee mafia bu cité bi ñëpp waa géejawaay ñëpp surtout sama waa koñ. waa koñu Lamine Sarr ASC Lamine Sarr di bëggee ay yu nekk géejawaay bi ñëpp waaw surtout site ak gàddaay bi ma nekk dama fi am ay nit yu mooy bëggee waaw monde entier waa Pikine waa benn tali xam nga gars yi mooy dooleel ñëpp di bëggee group whatsapp yëpp waaw di bëggee sama gars yëpp waaw. nuyu naa la. waaw maa ngi maa ngi lay fay. ma noo gisee teel mbër bi sa champion bi. waaw xanaa di kontaan rek. ci liñ mm-hmm. ko gis tey. Mm-hmm. comme d'habitude quoi dañ koy daan gis mu ñëw di entraîner depuis salle bi ñu tijjeeg léegi ça fait ñu ngi dugg ci cinq mois mm-hmm. mais salle bi ñoom bokk na ci les premiers élèves yu fi néew ñëw nekk fii ba def abonnement presque premier abonnement mu ngi koy def deux mois la fay directement benn benn kii am quoi fanam fan fansam moo ko fay déjà deux mois mm-hmm. à l'avance pour Mansour Mansour Tall moo ko defal déjà loolu mm-hmm. fayee ko deux mois à l'avance bon tamit mu nekk nga xam ne ku sérieux man mm-hmm. loolu laa mën a wax ci moom sérieux bi nga xam moom laa xam ci moom te dégg ci maanaam euh, nekk xale mm-hmm. bëgg boppam xam mm-hmm. boppam ba pare bu xewlee di mobiliser plus d'une dizaine de cars ci déjà ak âge am coow lu bëri loolu tamit succès la donc ci biir loolu ñu ngi présenté salle bi nga xam moo fi nekk mu nekk salle bi nga xam ne salle exemplaire la Euh, salle bi mu tijjee. dafa ñëw ak yeneen perspective maanaam fii maanaam propriété la ñuy wane fii si salle bi. ak machine yi nga xam ne ni ñu ko war a liggéeyee. ni ñu ci war a liggéey. dafa am yoon parce que entraînement dafa am yoon. dafa donc ci biir loolu ñu am kenn ku ñu dooleel. ki nga xam ne entraîneur la. mu ne coach. coach gym dañuy gis ñu bëri ñu leen di génnee télé. mais kii c'est leur expert. parce que yàlla dafa def boo demee Portugal dem Cap-Vert. Mm. ay Finlande. yëpp day dem ci salle yi gën a luxe mu mu fay jàngale donc da ko xam mën ko di ko teg ci yoon mm-hmm. bi mu ñëw ba léegi ak saal bi moom moo muy dooleel fii vraiment bu ñëwee man damay damay nëbbatu jox ko muy muy muy ëpp muy muy nit ñi dafa def ak olof mm-hmm. maam ñuy wax pédagogie mm-hmm. dafa am solo ci njàngale te moom pédagogie lay demee lépp lu mu lay wax boo demee nga xoolaat ci biir téere bi da ko fay fekk donc loolu mu nekk li xam ne daf ko peeg ci biir loolu lépp lu dem ci sport. Mm-hmm. mën ko maîtriser. Mm-hmm. ci arts martiaux mm-hmm. li nga xam mooy karaté. ceinture noire la ceinture noire la. mais champion la. ci wàllu karaté. en même temps dafa am attestation yi nga xam daf ko am ci diplôme yi mu am ci li nga xam mooy musculation. donc comme ni Bour nekkul ci tegul ci ay loxo caaxaan. loxo yi wóor la nekk instant bi bon ñu ngi koy wax di ñaanal. yàlla na ko yàlla gën a dimbale. di xam ni salle bi ay règlement la parce que mm. fii propreté bi moo waxee ma ne serviette mm-hmm. moom xam na si dara ku fi ñëw dama lay exiger serviette parce que ñu bëri ñu dem circulation te duñu yor seen serviette mm-hmm. dem naa ba nga xam ne damay a da nga war a nekk nga xam a xam ni da war a liggéey ak ak mm-hmm. euh, maanaam hygiène dafa am solo si doomu dañuy dañuy jaay serviette dañuy def exigence si serviette bi pare dañuy def location serviette boo ñëwee nga fàtte sa serviette sax location. location donc loolu yëpp pour wane ni liggéey bi la ku ñëw tilim sax dañu ne demal si toilette bi nga sangu. am na fi toilette am na lépp. donc euh, loolu laa mën a junj d' abord ci mbir bi. Mhm. may kët ci boppam mu leeral wan nañu lan mooy li nga xam mooy liggéey dëgg-dëgg. ndax est-ce que mbër da nga war a yem ci benn travail kese wala war nga def musculation wala woo ko def. Mhm. ak lan moo baax ci euh, li nga xam mooy euh, mbër wala musculation ci boppam. ok maa ngi leen di présenté Jim. moo nekk nii asalaamaaleykum. kon mm. bu ñu lay fay ñu si loo nekk nag. sant baax a baax. mais li sa li li liggéey fi mbaa dal na sa xel wala la. waaw loolu lépp dafa am lu ko jiitu parce que soo xoolee. Hmm. Buur Siteu bi ñuy xamante benn copain moo ñu booleeg moom Mohamed. dëgg la bi ma booleeg moom ñu commencé liggéey. Hmm. mais volonté am ak hmm. explosivité am. maanaam envie am. moo ma njëkk a frappé. dëgg yeah. kon fii mooy fan fi ñu indi nii. waaw fii nii nag mooy gàddaay côté njóobeen bi rek. waaw mooy cité gàddaay cité Sones quoi. dëgg waaw mooy xam nga moog saal bi sorante wuñ 49. waaw ay 49 saal ba saa yi ma saal nag fii laay ñëw xam nga. Mhm. def ku si mel ni Vito. Mhm. moom grand frère maanaam si ñu yoroon fasam xam nga. doon liggéey si moom. dëgg la waaw moom nag instant mu ngi France quoi. Mhm. dafay jënd saa moo ko fi jëndal kër xam nga. fii laay defee lépp moom mooy loolu lépp jàmm. waaw saa yi moom saa yi ma jógee saal ba may ñëw fii ndekki lépp. Hmm. mooy loolu sangu noppalu dalu xam nga heure kii géej gi jege na ma génn dugg géej su ma neexee delluwaat saal ba. maanaam saal ba ak fii xam nga jegante na. jegante na waaw bokkul la comme koñ ba quoi di bëggee waara waa koñ ba yépp waaw waa koñ ba sama koñ Lamine Sarr xam di bëggee koñ jaxaay marché njaaram bi nga xam fa laa defee sama lépp waaw jaajëf sama combat bi passé fii laay paree combat lépp dëgg la waaw lépp jàmm mhm. waaw kon jox ma saa mu mu nuyoo wax mu xam si mbër mi Vito nuyu naa la ñoo lay fay ci loone sant yàlla tey loo xam si champion bi ñoo ñëw seet si ko tey dafa moom émission matinalu mbër dem nañ salle musculation mu liggéey lu metti la mu ne xam ne ñoo wari sama nit ñi dem si ñoom tamit yaa ñu témoin si moom loo xamante ne lu rafet daal dëgg la waaw non mbër moom lu may wax si moom moom carrément. Mhm. mun moom wax wax si moom lu bari. dëgg la parce que booy xool. Mhm. depuis jeunesse la. Mhm. xam ba léegi. yàlla def mu nekk si làmb yi. ñëpp xam ko. ba pare ma leen laa koy dafa nekk ko xam ku teey quoi ku yaru. dëggal na ma nag quoi. dëgg la des fois nag d'une part. si côté yee bi. waaw laa koy sonalee. waaw comme lu mel ni Abadaro. waaw Abadaro donc mooy gérer affaire musique bi affaire yooyu. dëgg la daf may soñju du ma bàyyi du ma may jàmm. Mm-hmm. abaa une deux xoolal daf may woo téléphone. Mm-hmm. gaan mbër bu xamee dara. Mm-hmm. nay dem toog si tànk yi. dëgg la ma xam na man la xam nga comme combat bi di ñëw. bi passé xool buusi da xam ne buusi di indi na dama ko fa mere. dëgg la dama ne foofu. moo mm-hmm. jaay suñu combat mm-hmm. yaa may dégg mais dañuy ñaanal yàlla defaruwaat waaw te xam mbooloo mooy doole mm-hmm. dama leen laay ñaan rek lu mel ni waa parc njaareem xam nga fépp ba waa gàddaay fii xam ne am na fi mbooloo sax buñ xaar ay combat rek naan ay mbër gaa ngi ko jàppale lamb lamb buñ seen si moom mbër dañ ko war a jàppale carrément financièrement dañ ko war a jàppale mbër nekkul ay waxi neen dañ ñëw ay tur macha allah am na tur mais si kaw loolu lañ ko jàppale. mbër amul jàpp lu dem fii mbër yëpp la. dëgg la xale bu ndaw la te bëgg na ko. waaw te mu si yoon. Mhm. yi ma leen noonu man bari na Seydina Ahmed lu ma leen laaj njëkk ma ne ma nañ dem kon tey dañuy sant yàlla bu wér leen mhm. gërëm nag yéen ñamte ni yéen a ñëw comme ay tëgg comme ay la waaw suñu avance ko jël barke borom Tuuba doon nelaw doon nelaw bu si dara mbay comme bu ma si wax dama sant gërëm tool waaw waaw jàpp na si bu ñu bi Usmaan barke borom Tuubaa na foo bëgg a dem itam moo bëggoon ñu ci otoom soo amee la gën a seen ay kàddu mën na daa war a wax mbir waaw Sëriñ Tuubaa bi yaa wala taalaay doo gën nag nañ ñaan barke borom Tuubaa dañ koy jàppale fooy dërëm nag am ko luñ ko jox dara suñu doole ak suñu xel mu si moom te moom la ñuy ànd ak moom ñu serew ñi am luñ ko defal champion lay doon gërëm waa comme yëpp du baalu ñëpp àq sa sawam mbir jaajëf waaw waaw sax ma ngi si njeexal émission bi. waaw waaw waaw léegi woo gars waaw ñu woote waaw. waaw woote waaw woote bi rek mooy comme comme bi ñu jugee woon tey suba. waaw grand verre Mansour Tall. dëgg la moom la. <laughs> waaw bilaay bi sama la. dëgg la borom hmm. moom fa inscrit. dëgg la parce que Serigne moom la inscrit salle ba. Hmm. mooy saa bu ñu digee woon tey. Mm-hmm. waaw fi mu ko waxee. barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke du ma defal lu ne. dëgg la barke yaa gisoo tey oto bi ñu yoroon tey. moo mm-hmm. ñu ko jox soo si essence plein. dëgg ma doxal say course ba pare. barke Alxuraan maa koy sant bu baax. Mm-hmm. au moins sawar nit ku baax la. moom baax may dooleel. waaw ñoom moo am këram waaw fu nit jaar mu ne daa koy asile kooku daf may jàppale parce que kooku su ma nee combat di di bu baax di saytu tamit kii Tafaaloo. waaw Baye Mbaye comme moom la bëgg. dëgg la man moom Assane lay ànd. Tafaaloo maa ngi koy sant bu baax. waaw xaalis bu bëri la may may parce que alxuraan. waaw bu dee sama gaaw. waaw bu dee sama gaaw yow bëri na sama gaaw. waaw ñun ñëpp ma ko bëri. ñu doon wax. ñu doon fay gaaw boo mën la. Tafaaloo bii ñoo nekk nii parce que yàlla. dañu mën a doole. waaw dama ko doon dama mën a doole. waaw. université yi nekk fii yëpp dafa alquran kar waaw so mo ko ci dara ko ci dara waaw sëñ Tuuba Mbass bi nit moom la naa di ko sant bu baax ak sëñ Tuuba ma kooku amul fayam di sant dem Balla Fall Kampala daal di nekk semence Paris Paris waaw mafia sama mafia bi nekk xam nga ñoom Balla Fall ñoom Kaw Mbëri xam nga ñoom xam rek ak seen mais di gënee gaaw Youssou Kara Amérique fa Espagne la nekk loolu daa gën a def boobu Youssou Youssou Kara maa ngi bëgg bu baax baax faal la gis naa affaire yi asu bëri na maa ngi ne si affaire yi barke seen donc du am saan si kàddu monsieur nga gisee boobu waaw boobu yéen macha allah balaa may wax dara damay nuyu ñu fi toog ñëpp di wax ne rek nañ jàpp rek ñun amuñu kenn ñu ngi doog a am mbër waaw ñun mun naa la fii parc la ñun ñooyu doog a am mbër amuñu feneen fu dul fii koñ bi am waaw muy neex muy naqari koñ bi lañ am bu Siteu mm-hmm. li tax ma sawar di ko jàppale waaw dafa nekk booy bu yaru mm-hmm. bu tooy waxam sax boo gisee ni muy waxee rek nga xam ne ku tooy la dama doon dégg si waxu nit ñi ñu wax ne mm-hmm. amul respect te loolu dama yaakaar ne waxu baat ginnaaw la rek. waaw mais man moom gisuma ñàkkam respect. boo waral taw na bu ma demee ba bàyyi sama lépp nag. Mm-hmm. di toog ndax moom. kon xam nga ne jot na ma cër. Mm-hmm. xam naa ne man li ma doon mm-hmm. mais nit gis nga. nañ ko da koy dépassé. da te ñëw si yoon boobu nag. Uh-huh. yàggatul may naa la boo fi ñëwaatee. waaw. yaakaar naa ne. balaa boobu bu am bëri yu ko ragal. <laughs> dina am bëri yoo xam ne bu leen joxe avance duñ nelaw. ah ak tamit ma gàllankoor rek. loolu moom dama bëgg nag bi ñu jàpp si. waaw benn nit rek moo mën a def lépp. yaakaar naa ne bëgg ngeen def mais du ñëpp a tolloo aussi tamit. mais nañ si jàpp ñu jàppale ko. victoire si suñu victoire la. bisam suñu bis la. aussi tamit ñu laabante xol yi. parce que bu xol yi laabantewul dara du sotti. xol mooy jóg. lépp mën a sotti. mais kii wax fee kee wax fee nañ boole lépp ñun ñëpp ñu toog. ñu jàppale ko. keneen tamit ñu jàppale ko. keneen tamit ñu jàppale ñaanuñu yàlla tamit ñi ko jàppale moom kese de. ñaan nañ am teneen keneen ku topp moom nekk mbër comme moom. Hmm. ñu jàppalante. mais maa ngi ñaan yàlla tamit yàlla na ko yàlla yóbbu ba ci kanam. Hmm. instant yi moom gis ñu dara ndam rek la ñuy gis bu soobee yàlla. te ku ñëwee. na nga jël avance na nga jël avance am. yàlla day gis lu rëy. Ah, waaw merci waaw gars mos a kàddu yi waaw gars mos na ku ñu doon Modou Faye waaw ande Modou Faye ñoo doon ànd fii nii saa muy Europe waaw Modou la daf may lu ne la may defal daf may yónnee ay volis ay yore yónnee mm-hmm. ko Modou Faye borom Bagdad maa ngi lay sant bu baax borom Paris ñoom Modou Faye Sarr kii waaw kii sama combat dafay jàpp barki yàlla soxna su baax la Faty Sarr. dëgg la barki yàlla di bëgg gaab ñoom amaa daaru ñoom xos. per Saalum bi nga xam ne waaw per Saalum bi nga xam papa. waaw Saalum bu baax di bëgg Sall Oni Fallou Ndiaye. di bëgg promoteur rek. di bëgg amateur nag amateur lamb yi. waaw ñu am benn benn waaw maa ngi bëgg amateur yëpp. Mm. parce que man. lu tax may bëgg amateur yi sax damay dugg si stade amateur yëpp jóg. waaw su ma feccee su ma ñëwee stade fecc. amateur yi daf bëggee tàccu xam nga kon ñu sant leen mm-hmm. waaw ndax ñoom ñooy dundal làmb mm-hmm. waaw di bëggee amateur yëpp képp kuy amateur làmb nekk bitim réew mm-hmm. waaw di bëggee gaa yëpp ak te waaw di bëggee surtout gaa man ñi ma fa waa Soras <laughs> barki benn ñu nga seen mbër yéen bu jógee gunóor ñëppay jóg. dëgg la su ma jógee gunóor dañ may jóg dooleel ma. kon macha allah dama koy sant. waaw barke Sëriñ Tuubaa kii Baay Faal mhm. kii mooy macha bu jéey. doo sax waaw alxuraan. voilà <laughs> wala alxuraan. kii comme am loolu laa siy daj. dëgg la parce que dafa moom fàttewul démb. Mhm. moom Baay Faal la barke alxuraan musul musuma dégg ñu ne macha moo wax si buusi te lu ñaaw. dëgg la xam nga maanaam. sa waay la nit ku baax la quoi. waa koñ bi ñëpp sama doom ba ñoom Giri Bordeaux gars yi xam nga. Mm-hmm. ñoom Etienne. waaw ñoom Cheikh Diallo xam nga dañ ciy jàpp. waaw barke Serigne Touba. tey loolu waa seen ak ci ñoom ñu ngi sës tey euh, bi nga xamante ne moom waaw man tamit wax waa Sénégal ma seet si tey dafa waaw di waa Sen TV waaw waa Sénégal kontaan naa trop naa affaire yi waaw depuis boobu ba léegi xam dem nañ fa te waaw waaw yéen aw fay borom baax la surtout maa yow la <laughs> di wax na nag waaw dafa ko sa sa wax ba sa baabu nag waaye kat daf ñu def ko ba ñëw fa waaw yaa ma gën a xam sax ñoom waa Union Ndongo bu si bu ñëpp dañ ko waaj le 21 daf ma tuddee soirée waaw moom laa laajte yoo xam te gis Bou Siteu. waaw di la wax ne lañ xaar le 21 ans. incha allah ñu xam nga neexal ko. waaw yaa ma gën a xam di déglu Sénégal yëpp. waaw déglu waa Samet tamit. waaw fàtte waa Cap Manuel Forbe sama boy fa nekk. dëgg la di sant waa Samet bu baax ñoom Moussa bu ndaw fii fii. waaw sama gars yi ñooñu maanaam su may wax sax. gisoo kii boo ma raf kii sax moo. waaw bu ma si ginnaaw waay ak salaam noonu a ak yow liggéey ak yow liggéey bu rafet kon boobu Bou ah,